الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen إمام عبد abdou aziz ndiaye bu jàkk sacré cœur 3 vdn moo del si tey lundi 28 septembre 2020 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu ojo numéro 160 ci sunu jotaay bi passé tàmbali woon nañu waxtaanee euh, mbirum dund bi nga xam ne moo ñuy xaar ginnaaw suñu génnee àddina maanaam mbirum barzaq ak alaaxira euh, ubbi woon nañ bunt bi ñu waxoon ne dund googule ay étape la étape yi nag bi ci jiitu mooy bàmmeel mbokk yi doomu aadama bi su génnee àddina fekk na gis nañ kooram fekk na gis nañ koor bi ndaxte du du ku faatu rek ñu gis sa koor am na ñuy faatu te kenn du gis seen koor kon ku génn àddina fekk na gis nañ sa koor dañ lay suul ca sëg ya dañuy faral di wax ah, dañ koy jébbal boromam waaye nag xanaa loolu dañuy wax ne waxin la rek ndax te fekk na ne malakal mawtu moom def na ko bu yàgg ba mu roccee ruuga bañ roccee ruuga ba mu rekk récupéré ko la ko yóbbul borom ba kon ñun li ñuy def mooy xott bi dong dañuy suuli waaye nag du ne doomu aadama bi dañ koy dañ koy jébbal boromam déedéet loolu loolu ma mawtu def na ko bu yàgg ruuga moom rocc nañ ko yóbbu nañ ko bu yàgg ñun xott gi la ñuy suuli xott gi l'enveloppe terrestre maanaam xott gi xott xott bi la ñuy suuli koor bi xott la mbokk yi xott la rek xott boo xam ne la soo ko suulul dina nëpp lor doomu aadama yi bàmmeel nag mbokk yi xabaru euh, liñ koy gën a ràññee mooy ne ci génn àddina dafa am ay laaj yu mu fay yu mu fay jànkoonteel dafa am ay laaj yu ñu ko fay laaj mu war leen tontu su ko mënee pour mu mën a tontu nag borom bi allah subhanahu wa dafay joxe ndigal ñu delloo néew bi ruuxam ñu delloo ko ko ci biir bàmmeelam le temps mu daldi tontu. laaj yooyu le kan moo koy laaj ñaari malaaka la ñaari malaaka ñu ràññeel leen seen tur ñu xamee leen ci seen tur munkiir ak nakiir tur yooyu nag mbokk yi ñaari tur yooyu di munkiir ak nakiir di ñaari malaaka yi ñuy laaj ci biir Euh, xabru bi ci biir bàmmeel bi seen tur nag nekkul ci alxuraan seen tur ñëwul ci alxuraan waaye am na benn xadisu abu urayra radiallahu anhu boo xam ne tirmisi moo ko solo ñaari tuur yooyu lee ñëw nañ ci xadis bi wante nag mbokk yi am na ay yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñoom dañ ne ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy laaj nit ñu baax ñi ñi nga xam ne dañoo texe wute nañ ak ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy laaj ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ñi nga xam ne dañoo kàccooroon ñaari malaaka yooyu utee nañ kon yenn ci boroom xam-xam yi dañ ne ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy laaj ñi nga xam ne dañoo texe maanaam nit ñu baax ñi te ñaari malaaka yu yu rafet lañ yu neex deret alors que ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy laaj ñi nga xam ne dañooy wedd seen borom ay ñaari malaaka yu ñàng lañ yu soxor am na ay borom xam-xam yu wax yooyu euh, allahu ahlam yàlla rekk a xam waaye li nga xam ne daal moom amul sikki sakka li nga xam ne moo amul sikki saka mooy ne allah kulli xaal am na ñaari malaaka yoo xam ne ki génn àddina ñaari malaaka yi dinañ ñëw ko fekk ko ci biir xabru ba di ko laaj lan lañ koy laaj ñett lañ koy laaj dañ ko laaj kan mooy sa borom laaj ko kan mooy sa yónnent laaj ko lan mooy sa diine ci laaj bu njëkk bi kuy sa borom su nekkee ne ki génn àddina ba mu nekk ca ba muy dund wéetaloon na borom bi kennal ko bokkaalewu ko ak kenn bokkaalewu ko ak lenn rax ci dolli ba muy dund ba mu nekk ci àddina daan na sàmmonteeg ndigalu borom bi Allah subhanahu wa taala doon ci def kem kàttanam di sàmmonteeg tere borom bi Allah subhanahu bàyyi lépp ah su ko defee nag su ko borom bi Allah subhanahu wa saxalee su ko borom bi Allah subhanahu wa dimbalee dina mun a tontu ne Allah subhanahu mooy suma borom. waaye su nekkee ne safaan bi la su nekkee ne moom ba mu nekkee ca àddina daf doon bokkale ci ay jëf ak walla ci ay wax su nekkoon ne moom yoonam nekkuloon ci ay li borom bi tere ak lu war ak li borom bi digle yoonam nekku ci lu ko neex rek kooku moom mbokk yi du mun a tontu du mun a tontu ci bàmmeel bi ne allah subhanahu wa taala mooy suma borom ñaareelu laaj bi kan mooy sa su nekkee ne ki génn àddina bëggoon na yónent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu sincère la mbëggeel gu sincère mooy lan mooy mbëggeel goo xam ne amul beneen mbëggeel bu ko féetoo kaw su nekkee ne ki génn àddina ba muy dund yónent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënaloon bépp mbindéef rax ci dolli daan na topp sunaam daan na topp sunu yonent bi ci ay ibaadaatam maanaam ci ni muy jàmmoo yàlla ak ci ay muamalaatam maanaam ni muy jëflanteek doomu aadama yi ci pénc mi su nekkee ne moom daal boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon royukaayam ci lépp borom bi amaana mu saxal ko dëgëral ko jàppale ko ba ci biir bàmmeelam dina mun a tomp tontu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suma yonent wante nag su nekkee ne ki génn àddina moom yonent bi du royukaayam defuloon yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam royukaay sunu yonent bi yitte lu ko won yittewul yitte dafa ko woon mu yitte ci moom topp sunu yonent bi du woon yitteem ba muy dund moo xam ci wàllu jàmm yàlla la moo xam ci jëflante ak yeneen doomu aadama yi kooku du mos a mën a tontu ne yónnent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yónnentam ndaxte dafa koo royukaay ndaxte sunu yónnent bi soxalu ko lool yal nañu yàlla musal ñetteelu laaj bi su nekkee eh, eh, mooy lan mooy sa diine su nekkee ne ki génn àddina mu doon sàmmonte ak ponk lislaam yi su nekkee ne ponk lislaam yi mu ngi leen doon jëfe ah su ko borom bi allah subhanahu wa saxalee amaana dina mën a tontu ne lislaam mooy suma diine waaye sàmmoonteeg ponk lislaam yu mbokk yi mooy lan sàmmoonteeg ponk lislaam yi di jiitu mooy ba mu nekk ci àddina est-ce que daan jox jullit julli wàccuwaayam est-ce que daan na jox julli wàccuwaayam di ko def ni mu waree ca waxtu wa est-ce que jàpp na ne julli mooy li ëpp solo li ëpp solo ci àddina fii ci kaw suuf ci àddina julli moo ci ëpp importance rawatina julli ca waxtu wa est-ce que ki dee moom loolu dund na ko est-ce que dund mu doon dund loolu ba jox julli wàccuwaayam hmm? est-ce que ki génn àddina naka la def ak zakat est-ce que génnee na zakat ab déet fekk na nag mun na ko sàmmonte ak zakat nga génn ko fekk mën nga ko ndef est-ce que defoon na ko naka la def ak weeru koor ki génn àddina sàmmoonte woon na ak moom am déet daan na oor weeru ramadaan am déet fekk ne amul benn gàllankoor naka la def ak aji màkka bañ na aji màkka fekk ne am na moyen yi wala boog dem na fekk ne am na moyen yi mbokk yi sàmmonte ak ponk lislaam mooy nga def say wareef jëmale ci ñoom defuloo ko sàmmantewuloo ak ñoom waaye mbir mi du sàmmonte ak ponk lislaam yi rek de ankay foog nga def ko nag dafay jiitu foog mu am mënoon ne julli nga te fekk julli doo julli mënul nekk julli laa te duma julli mënul nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ñuy utalee ak yéeféer yi mooy mooy julli maanaam ku bàyyi julli rek yéeféer ga kon ñun ba ñuy dund ki dee ki génn àddina ba muy julli naka la noonu naka la ban place la joxoon julli aji màkka dem na fekk am na am déet asaka mu ngi ko doon génnee fekk am na am déet su loolu weesoo su ponk yi weesoo mbokk yi buñ fàtte yi tamit ne islaam dundin la dundin est-ce ki génn àddina doon na dund lislaam dund lislaam mooy say mbiru àddina nga koy méngale ak ay atte ak tëralinu lislaam li lislaam indi ci atte ak tëralin est-ce que yow méngale woon nga sa dund ak loolu kon mbir yi yemul ci jëfee ponk yi rek lislaam ay ponk la wante lislaam dundin la tamit lislaam mode de vie la dundin la mbokk yi su nekkee nekk génn àddina motale woon na jëmbale ci mbirum ponk yi motale na ci wàllu dundin su ko borom bi allah subhanahu wa taala saxalee ci biir bàmmeelam dimbale ko amaana na mun na tontu ne lislaam mooy suma diine lu ko moy lu ko moy su nekkee mu doon sabote ponk lislaam yi wala jéemul méngale dund dundinam ak attey lislaam ak ay tëralinu lislaam du mun tontu du mun a tontu ci biir bàmmeelam ne lislaam mooy suma diine léegi nag mbokk yi kon ki génne àddina ñaar moo mun a am tontu na tontu na correctement tontu na correctement wala tontuwul wala tontuwul ñaar yooyu am tontu nga tontu yu baax wala tontuwuloo léegi lan lan la naka la malaaka di jëflanteeg ki nga xam ne tontu na tontu yu baax ak naka la malaaka yi di jëflanteeg ak ki nga xam ne tontuwul kooku mu dinañ ko gis kon mbokk yi ci suñu audio bii di ñëw ñi nga xam ne nag ñoom kenn suuru leen parce que ma fàttali rek ne laaj yi ak tont mu ngi ci biir bàmmeel bi la waaw ñi nga xam ne nag ñoom ñoom kenn gisul seen koor génn nañ àddina parce que dañu lab ci biir géej seen koor kenn gisu ko faf wala ñoom mara détaal yi dañ lakk ba jeex day am war a maara day taal seen seen corps dafa explosé ci benn bomb ñooñu kenn gisul seen corps duñ am xabru duñ am xabru duñ am xabru waaw mais ñooñu lan mooy seen atte lan mooy seen atte incha allah mbokk yi fas nañ yéene su ci borom bi allah subhanahu wa taala subhana euh, ñu fas yéene kon tontu tontu yi ci ojo bi nga xam ne incha allah moo ñuy xaar euh, alxames ak jàmm subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم